nataal ñaar fukk ak ñeent benn guddi ab kilifaay diina bu tudd Nikodem ñëw na waxtaan ak Jésus Jésus wax ko mbir mu doy waar mu xamal ko ni ku bëgg a bokk ci njabootu yàlla faawu nga judduwaat booy dugg ci njabooti yàlla day mel ni dangay juddu beneen juddu juddu bu njëkk zaayir la judduwaat baatin la amuñu maqaamaay soppi suñu bopp xelu yàlla bu sell bi moo ñuy jox beneen dundu suñu gëmee Jésus ñu doon beneen mbindeef bu bees di mbindeefu yàlla